حمدا لمنجي دان وداي ومنزل الدواء والدواء حمدا لمنجي دان وداي ومنزل الدواء والدواء من أمر الهدى دابته إلى الدواء بلاء ثم على من أيضا فمن يوم بلاد الأمر فمن خير محمد النبي من عزيز أتى سلام ربنا الكريم هو الذي وسع بشرعه فسودته وكاملين هذا وجهي يوم هو أجل فزكي يوم الدين بدانية متأسكين اليمان sant ñaan yooyu yëpp gis nañ ko de li li li ñaan ngay ngeen dolli rek waaye tubarkàlla tubarkàlla dëgg la dëgg la dëgg la dëgg la dëgg la dëgg la moo tax de tubarkàlla alhamdulillah ñu ngi sant bu baax a baax di ñaan mu balaa magal ga rek kenn du wax loolu rek <laughs> lan laa na màggal <laughs> <laughs> moom de moom mën na ko. waaw loolu la de. waaw dëgg la wallaahi wallaahi wallaahi wallaahi wallaahi wallaahi. ñu ñaan rek. waaw jërëjëf mbokk jërëjëf jërëjëf. waaw ñaan rek. ñoom ñu nag daaw. Mm-hmm. xam nga ñoom ñaan ak professeur Lamine Gueye. Mm-hmm. ñu doon saytul comité d'organisation bi. lépp lu jëm ci wàllu kër docteur yi. Hmm. ngir jàngoro ji ak yu mel noonu. xam nga ñëw nañ fi. Hmm. ñu ñaanal leen. Hmm. su doon suñu doon maa ngi ci ndam loolu nag. lépp li ci sa barke. benn ñu ne mën tàmbaliwaat dara. faaw ngi dikk ba ci yow. yeesalaat ndigal li. su ko defee nag soo ko dem tàmbali liggéey. ñoom ñii ñëpp nag sëñ bi ñoo ngi liggéey ci. li ñuy jàppale comité d' organisation bi ñoom ci wàll wàllu docteur la seen kalmaaj léegi nag su mu ngoog moo tax lépp lu ñu defoon daaw te nga ñaanaloon ñu te sa barke yi taxoon yi ñu am ci ndam mm-hmm. loolu dañ ko bëgg a reconduire mu gën a yokk sax loolu amoon lépp te biir lii xew it liggéey nañ ci bu baax ci ndigal yi di gouvernement bi di wax ak yi docteur di wax ak soreele beeg masque yeeg gel yeeg ren nag lii lii ñu ci yokk yëpp gëstu nañ ko te buñ sañoon ni waxtaan ceeg askan bi mooy mbiru vaccination yi ah, loolu moom ñii ñëpp seen xel dafa màcc ci loolu waaw léegi nag ñu doon jël si ndigal surtout jël ci ñaan daaw non nga ñu ñu am ci ndam ci ñu liggéey ci Serigne Cheikh Abdou mi ak comité d'organisation bi ñuy sàkk ci waat ñaan ak ndigal dëgg la xam ne xam nga dañ dañ dañ koy wéetal rek. ndax dañuy ñaan ci barke sëñ bi. ak sëñ boobu dooleel nañ ko. dëgg la moom moom la kër. dëgg la moom dootul liggéey ak suñu borom. dëgg la ci ñaan rek yàlla mën na ko. amiin waaw waaw dañuy dañuy wéetal yàlla te dooleel sa. waaw dooleel sëñ bi ci ñaan ci barke. yàlla dëgg la yàlla rustu ko rek. jërëjëf jërëjëf jërëjëf. wéetal yàlla. dooleel sëñ bi. te ñaan ci barkeem. te ñaan ci barkeem. bu dee yàlla doole soo ñaan ci barkeem. waaw <laughs> d'accord waaw. jërëjëf ñëpp toog ak yéen ñu sant yéen ñi ñëpp seen. Mm-hmm. sant mooy taxawaay bi rek ñu ngi sant ci taxawaay bu baax a baax. Mm-hmm. tabarakallah. waaw jërëjëf yéen li wax dëgg yàlla. waaw tabarakallah. jërëjëf jërëjëf jërëjëf amiin ومنزل الشفاء والدواء حمدا لمنزل لنا وداء ومنزل الشفاء والدواء من أمر العباد بالدعاء ليدفع به عن البلاء ثم على من حيث مس سامرت يبرأ بلا ملك وفاز الحكيم dañuy sant ci liggéey bi ñu am chance doolaat ci suñu loxo ci ci sa coordination parce que unité bi moom léegi nag euh, comité d'organisation bi ci biir la ñu nekk yàlla def nag ñu am lu ñu dénk li lii ñuy wax alerte ak prévention loolu moom fu ay millions di nit di tase yaakaar naa am na solo lool ñoo xam ne yàlla may na leen ci xam-xam yu tuuti ba pare surtout ñu nekk ay taalibe engage wu li euh, décidé liggéeyal sëñ Touba ci màggalam bi ci màggalam gi ak ci communauté bi léegi nag lépp lu ñu defoon daaw yéen ñu ñaanaloon sëñ bi jox ñu ci ndigal ñaanal ñu yàlla defoon amoon nañ ci ndam ñu yéenewaat euh, loolu ñu ci defoon daaw li ñuy def ren ëpp ko taxawaay buñ ci amoon daal ñoom ñii ñëpp taxawaat nañ ci partenaires yi nga xam ne ñoom lañ doon liggéeyal ndool daaw ñoom ñëpp joxaat nañ ñu seen engagement ne dañoo bëgg a taxaw ci liggéey bi léegi nag euh, dafa taseeg ren encore lii xew te daaw xewoon na waaye eh, ngir eh, suñu borom ak ñaanu sëriñ bi gis nañ ne màggal gi amu ci woon benn impact walla benn njeexit loolu nag am nañ ci yaakaar ren moo tax ñu seeti woon sëñ bi pour mu ñaanal ñu ci joxaat ñu ci ndigal ci lii xew nag daaw yaakaar na stratégie bi amoon na ci solo comité d'organisation bi ñu jàppale woon bu baax a baax ñuy sàkk yëpp ci yow muy président bi comité bi jàppalewaat ñu xam nañ ni sax loolu moom daanaka am na ba pare ñu liggéeyoon ci liggéey bu rafet ak yow ñu ko jiite liggéey ko ak sëñ Cheikh Abdou sëñ Ousmane yi jàppale woon nañu euh, ci loolu lépp luy ndigal lu gouvernement bi joxe dañ cee bëgg jàpp liggéey kook nag waa ministère de la santé ndax ñoom ñoo yore loolu ñun dañoo nekk ci biir communauté mouride bi jot ci ndigal waslu ci àq moo ñu war liggéeyal ci sëñ bi ci loolu nag ndigal yi li ci ëpp moom solo mooy loolu ñuy wax mesure barrière muy masque yi di gel yi yokk ci li ñuy wax distanciation sociale yàlla def na ne limi don doon yépp ay million nit distanciation sociale mën naa am stratégie biñ ñu tëraloon daaw indi na ko parce que fexe nañ ba fépp fu ñuy ziyaare nit ñi jël seeni mesure waaye it bañ a te loolu distanciation sociale la ñu de euh, àdduna di dox ba ren leneen dugg ci beneen moyen prévention muy li ñuy wax ñàkk yi loolu nag ci suñu euh, kuréel gi am na ci ñoo xam ne ci loolu la leen yàlla may ñu gëstu ko ce qui fekk loolu it bëgg nañ cee liggéey wax ceeg askan wi noo xam ne yaakaar nañ noonu mën a wax noonu lañ ci mën a waxeek ñoom ndax euh, seetlu nañ ne ci mesure prévention yi gën a am solo la bokk waaw loolu yit ñu sàkku nañ ci ndigal sëñ bi sàkku ci ñaan di ci ñaan it njàppale ba ñu mën cee wax ndax lépp a ànd rek mënuñu wax ne lii gën lee mesure barrière yi ci la ñàkku yeeg vaccination bi ci la lépp daal ci la ñu fas yéene ci liggéey nag bind nañ plan d'action bi nag ba mu taxaw xam naa dina ñëw partager ko ak comité d'organisation bi parce que loolu mooy voilà altine sax la <laughs> waaw sa ñabo woon na ma comme ça ñoom itam ñu xam li ñu nar a def euh, xelal ñu ci ñu soog a commencé nag def ay jéego dañ ne woon nag balaa ñuy def benn jéego ñëw ziar sëñ bi seet si la ànd ak sëñ Cheikh Abdou loolu mooy suñu tànk tey ñoo ngi sàkku ñaan daal waaw kay. asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuhu ñu leen di delloo am bu baax a baax di di sant di leen gërëm ci taxawaay bi ci li weesu ak ci li egsegut li ëpp solo nag ni ko Serigne Abdoul Ahad Mbacké waxee léegi mooy laata ngeen di def dara dem ngeen ci. Cheikh Mouhamadou Mountakha mi nga xam ne mooy fii Serigne Touba te du borom ndigal li te lépp ne ci loxoom mm-hmm. dem laaj ci moom ndigal ba mu jox leen ci ndigal yi salaat ko ni leen ko joxe woon daaw wóol bi ko ñaan ci soññee ci te yi sëriñ bi wax léegi ne moom la wax doy na sëkk mooy doy loo yaakaar yàlla te doy loo Serigne Touba mm-hmm. te jéem a sàmmonte nag li nga xam ne yéen ñi nga xam ne yéen la suñu borom dénk loolu. ni ngeen jàpp ni la war a deme ngir nit ñi mën cee mucc loolu euh, moom war na ne ci misaal ndax ku ne xam ne Cheikh Mamadou Mountakha fi mu toll ci diggam ak boroom ku ne xam na fi mu àgg ci wakiilo ci loo xam ne ñun ñi ko xam démb xam ko tey xam nañ ko xam ne moom mm, dundut dara lu weesu li suñ borom santaane ci moom waaye ku nangu dogalu bi yàlla ba tax sabab sax euh, lu ci ne fa ko yàlla yemal rek fale ci yem eh, ba ci li mu woote woon bu yàggut yëg-yëg bi mu ci amoon ak lam ci wax waaye dégg kàddu yi mu wax bi mu ko waxee bi ñooy ginnaaw suuf la mu ne ñaan gi ñu def kat dañ koy def lu dellu ci yàlla tuub ngir yaakaar yàlla waaye nag gàlluñ ko dara ci ñaan gi ndax eh, suñu borom moom moo yor kattan gi moo yor coobareem buñ ko xasee ba ñaan rek li des dañ koy bàyyi ci coobaram bu fekkee maye na ñu sant bu fekkee mayewutit ñu xam ne loolu mooy li gën ci ñun ma ne ko loolu da mooy baytu Sëriñ Tuubaa wax ne yaa rabbi in a'taytani fa shukru wa in mana'ta farida wa sabru kon mu dëppoo baytoo kon lépp foofu ko teg kon nag doona sëkk misaal ci képp koo xam ne yaakaar nga Sëriñ Tuubaa wala képp koo xam ne ab jullit nga wala képp koo xam ne ku dëkk ci réew gi tey xool nga xam fi mu toll ak ni mu doyloo yàlla ni mu gëmee Sëñ Tuubaa ni mu doyloo borom ba noppoo bëtu ko masque yëpp mu di ko jëfandikoo ngir wane ci aw yoon loolu rek bëgg dimbali nit ñi tax mu di ko def boo doolee ci waxi Sëñ Bay Jaxate dafa ñaari aaya wayete jënn bu xal si ak wa sëyu jënn bu xal atqal la si loolu mooy li sëriñ bi jaxat di wax nan euh, kii daw kiy lu bon ak ki lu bon di daw mooy ñaar yooyu wasayu mm-hmm. jën wasayu jënd bu ak yette jënd bu mm-hmm. mooy loolu kiy daw lu bon nga njëg murit la bu yëggagul mm-hmm. waaye nag ki ki nga xam ne daw na borom moom ñaan lu bon koy daw daa cee teg ne bul dégg nag wax ji mu wax tax nag nga naan yónneen da daa musloo ko daw laaj lu xew loolu mu daa mosuloo ko dafa daa xamal xeetam bi mm-hmm. waaye juddóor ji fu mu war di am mm-hmm. kon sëriñ bi bu gisee lii mu di ko def mm-hmm. mooy day wone nit ñi fi war a jaar te moom loolu responsabilité ma ndax ku fi mas a nekkal Sëriñ Tuubaa ku ne Cheikh Abdoul Ahad am na kàddu yu mas a yëkkati jëme ko ci taalibe Sëriñ Tuubaa yi waaye ñoom doon waxal ci biir wax na ne ne responsabilité am diggam ak Sëriñ Tuubaa ci lu ko Sëriñ Tuubaa woon kon képp ku fi nekk di Sëriñ Tuubaa lépp loo diggal nit ñi rek loolaay liggéey ci ñoom loolu te topp ndigal li ci la njëriñ li ne kon nag loolu nit ñëpp gën a góorgóorluwaat ngir xam ne ne bu ko sëñ bi defutoon te santaane ko it ñëpp war koo def ngir toppi ko ndigalam rawatina nag mu di ko def ba noppi jiitu ca di ko tegtale te jublu ci daal lu may bëgg nañu sàmm te ku baax ki Cheikhul Khadim Euh, ak Cheikh Ibrahima Fall daana ko wax nee na Sëriñ Tuubaa mu ñu yare lépp lu ñu digale moo ñu ci jitu mm-hmm. bu dee jaamu yàlla moo ñu dàq jaamu yàlla moo tax fu mu ko mosaan wàcce ci liggéey bi mu koy liggéeyal mu ne ko yaa ma njëkk a xëy ci liggéey Rasulullaahi sallallaahu alayhi wa sallam te gisaguma nga wàcc ba nga gën kon ñun itam foofa la ñu war a ne mm-hmm. lii nga xam ne mooy li fi xew nag di mbas mi coobare suñ borom netti naa ko ba tàyyi mm-hmm. ndax ci njaarim la ci sëriñ Tuubaa waxoon ba mu àndeek tubaab bi ànd ak sëñ Balla Coro ba mu dikkee mm-hmm. eh, di ko leeral fi situation bi toll fekk mm-hmm. sëñ boo xam ne lépp sëñ bi ne leen lu fi suñu borom wàcce la waxtu wu ko jeexalee dana jeex ban jaaxle ba jaaxlaa ñu ne xañ ne sëñ bi dafa déggul fi àdduna toll moo tax bi Cheikh Mouhamadou Mountakha wootee am ñu bari di jaaxle Mm-hmm. may leen jàmm képp ci topp mm-hmm. ndax màggal Tuubaa gi daaw mm-hmm. ba mu ci joxe ndigal ñu bari jaaxloo nañ waaye jàmm ci topp nit nag la la weesu nga jàng ci gémmi ca li ci ëssiw li nga ëssiw daa war a sama xel ginnaaw bi tubaab bi ñëw bi mu dellusee di gën a leer sëñ bi sëñ bi bu tàmbali rek sëñ bi ne ko xuliñ nal mawtal la si tafiroona minhu fa innahu laaqikum tubaab bi nga waxaat ki mu àndal ne ko ten koo gën a leeral mm-hmm. su ñu ne ko ay namaatukoono yudrikum mat wala kuntum fii burujin mushayyada mm-hmm. ba bis nag mu xëy wax ne yàlla suñu borom mi mi ma mi fi wàccoon jàng bi te dégg ngeen nettali naa ko fi daaw ci màgg bi bu jub mm-hmm. am na koo xam ne ku ñëpp xam la da koo dal mu agsi fekk sëñ bi ci jàkka ji sëñ bi sëlmal ma ne ko maa ngi nii de wéer waaye bu ma dee danga koy layoo sa borom sëñ bi xëy ci jàkk ji bis rek dem fekk ko këram ba mu ko juboo rek mu ne ko bu ma jege de ndax damaa pes ndax pes xam nga ne ko ku ku ma sa jege rek kenn dootu ko nettali waaye sëñ bi daa ñëw ba tiim ko jël loxoom teg ci boppam daal ko tàggale ko fa sansa loolee nag moom foofa la àggoon mm-hmm. moo tax suñu kilifa gu baax ko sëriñ sox yi da daa wax ne mm-hmm. dafa am ci magi magi sëriñ Tuubaa ko commencé na ko ah ñun magi taalib yi di yomul jaaxle ndax dañoo gis seen ngeen fonk docteur loolu te ñu gis ne seen waaj ku ku ku bañoon loolu la mm-hmm. mooy sëriñ bi sëriñ bi nag ah, waaw moom de dañoo bokkut ak moom ndax moom de bu ma saan jàkkaarloo bu wéree de danaa ko jàngoro bàyyil diw mu dem mu ne ko ku mënta àgg foofu nag ñu doy loo ko tey ñaan ci barkeem te leen di yebal ci docteur yi waaye dañ ñoo dafay jiitu waa kër Sëriñ Tuubaa yëpp ci ñi ñu xam ku ma sa wér di ci seen biir kër dañ la yebal ci docteur yi kon loolu cër la bu leen suñu borom jox fasalu ahli dikri in kuntum laa la ta'lamuun moo fassiroon yi ñu bëri danañ ko firee ci anam yu bokkut waaye bari na ci ñoo xam ne wax nañ ne tàbbi na ci biir kon yéen itam li ngeen jàpp ne moo ci musle mooy yi ngeen wax yëpp di ay nattuwaay ndax euh, nit ñi itam léeg-léeg li ñuy wax tanaaxud da leen del tanaaxud mooy contradiction ndax nu'minu bi baax di wa nakfuru bi baax di jooju alxuraan def moo leen del bëgg gëm li yedd li ndax koo xam ne bu sa bopp méttee boo demee si docteur mu digal la aspirine nga naan ko nga gëm ne dangaa war a wér boo si buur war a war a dem hôpital kon jàpp naa ne ñoom itam bu ñu xoolee ba gis ne lii moo ko mën a saafara bu ñu la ko waxee da ko war a gëm ci ci nattuwaay te gëm naa ni itam sekkari suñ borom yi ci biir ndax yàllaa leen si wàcc mhm. ci waxoon na ko yonte yàlla Moussa lu gudd lu wax njur del si waat kon daal ñu ngi soññewaat mhm. di rafetlu di sant waa comité bi yëpp mhm. ñu ngi seq rawatina ñi nga xam ne ñoo ne ci bopp yi bàyyiwuma kenn waaye bu ma ci tuddee sëriñ Ousmane tudd ci sëriñ Cheikh Abdoul Ahad Mbacké mi tudd ci sëriñ Cheikh bi ak yeneen commission yu seq yëpp mu mën a yóbbaale mboolem ñi ci ne ñëpp di leen sant ñoom itam ci seen pëstéef ak seen taxawaay ndax lii ñuy def lu ci Cheikh Mouhamadou Mountakha joxe ndigal moo leen ko xesee bu wàcc wax rek noppi naa ja ñoo ci def yitte daaw xam nga ne def nañ ci taxawaay bu mat sëkk def ci pëstéef ba ñu am ci ndam ginnaaw ñaaru sëñ bi Pastef boobu nag xam nañ ne waxuma man sax waaye Cheikh Mouhamadou Mountakha mi ngi koy defal xam ne pay gi ci loxol Sëriñ Tuubaa la ne mhm. loolu nag loolu la ñu dund mhm. moo tax soxluñ ko ko xam soxluñ lañ ci def nit ñi di ko xam mhm. waaye nag kañ ko seq di sëriñ bi xam na ko kon yàlla leen ci gën a defal kattan ngeen leen ci defal ndimbal ngeen leen jee defal tawfeex ba ndam yi ñu ci amoon daaw ren ji ñu am ci lu ko te gëm naa ne itam yàlla euh, la ma waxoon rek Serigne Saliou Mbacke waxoon ne yaakaar ju tas ñun yoon kër Sëriñ kon nag ñu ngi rafetaa njort te lépp suñu borom nag mi moo borom kattan gi borom sañ bi te mooy def mooy dindi loolu na def rek moo gën ci ndax li mu ne asa an takrahu an tuhibbu shay'an wa huwa sharrun lakum wa asa an kon nag ñuy soññ bokk taalib yëpp ak bokk jullit yëpp ñu jéem a gàttoon ndigalu Cheikh Mouhamadou Mountakha li nga xam ne santaane na ko ci lépp ñu bëgg a sàmmoonteeg xam ne dañoo nekk ci biir réew mi doyloo suñ tubaab yaakaar ko xam ne mën naa dox suñu diggee lépp dëkk feeg suñu nawle te Cheikh Abdoul Ahad Mbacké daan wax ne ku la yaakaaru ku ne sam nawle kon ñun dëkkalu dëkk réew mi te bokkuñ luñ gëm itam war nañ leen a siddi ndax àq dëkkandoo def for dañoo bokk réew mi kon it ñuy sàmmanteeg loolu lépp loo xam ne ñëpp ko def ñoo koy àndaloo ndax euh, dañoo nekk ci biir réew mi nekk ci biir àdduna te mënuñoo beddi ko ndax suñu saar yi daana ko wax lépp loo xam ne day wan ne Touba ngi bedd ko ci réew mi war nañ ko daw ndax ndax naan Touba mooy xolub Sénégal kon ndegam mooy xolub Sénégal nag lépp lu ñuy def rek luy war a gën a jëmbal benn réew mi la ñuy kon nag xalaat yooyu yëpp nag suñu kilifa yooyu dañ ko jëlee. kon ñu ñaan yàlla màggal gi ñu dugg ci jàmm génn ci jàmm day ci tawfiix waxtu suñu borom musul ñu ci jàngoro ji bañ a law ndax xam ngeen ne jàngoro ji li mu ci bakkan bari na mm-hmm. na ñoo xam ne itam bu fekkente ne romb na leen jàll dana bàyyi ci ñoom jeexit mm-hmm. li muy yàq ci koom-koomu adduna yi bari na mm-hmm. ñëpp xam nañ ne jamono ji metti na ci nit ñi te loolu lépp yokk na ci lu bari jamono ji metti woon na mu ñëw dolliwaat ko loolu lépp nag kon lépp luy tax loolu gën a jeex ñëpp ci war a góorgóorlu def ci yitt def ci posté def ci taxawaay te diglu leen ci yéen itam te bañ cee jooy ak yéen ndax loolu suñu borom leen ko jagleen asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakatu ama bara biismi rabbina wajeeyi jamaa sabaa ala rabbina kama sabaa bimanni wajina ayi jamaa sabaa ala rabbina kama